xam ne euh, ci lañ jëm mu mel ne tension def ci commencé di am ngir waxtaanee yu ñu mel tey dañuy am mbégte di ànd ak ceex euh, na Lo ancien ministre la waaye tamit bokk ci coalition euh, Benno Bokk Yaakaar na loo ñu ngi lay nuyu di la dalal jàmm. Moustapha maa ngi lay nuyu di la remercier ci invitation bi. jërëjëf pour waxtaanee problème mu réew mi. jërëjëf alors problème mu réew mi biñ ci njëkk a tànn mooy conseil constitutionnel alors d'une manière globale ban commentaire ngay def ci décision yi nga xam ne <coughs> moom la génne keroog ci àjjuma ci guddi. parce que yàlla dimbali nañu ñu am réew moo xam ne nii ñoo ngi respecté élection yi nga xam ne bi leen tëral nañ ko muy ñëw di jaar toujours ci jàmm di terminer toujours ci jàmm ca ñu kon ni di def processus yi parce que réew moo gis rek mu kon ni di def ay élection muy dem di dem am résultat booba réew réew mu am démocratie la parce que dans les pays yi nga xam dafa am ay dictature mm-hmm. nit ñi ay expression de violence et de rue la ñuy régler seen ay problème mm-hmm. le processus démocratique mi ngi dem léegi nag beneen vitalité démocratique bi ma ci euh, saluer mm-hmm. mooy bu ñu demee koo xam ni kii teg nañ la dara ca nga gis ne lii du lu la gënal am nga ay voie de recours mooy nga jël problème bi ci ministère de l'intérieur bi yóbbu ko au niveau du conseil constitutionnel mmh. conseil constitutionnel boobu nga xam ne bi la ñun ñoo wote benn constitution mettre ko en place ne suñu élection ñu mën di def ci Sénégal mm-hmm. kii mooy valider mooy invalider kii ci kanamam ngay toog di def sa prestation de serment. Mhm. lañ jël affaire yi jébbal ko ko mu joxe ay verdict waaw verdict yooyu nag mën naa am ñu mu neex. Mhm. mën naa am ñu mu naqari mais dafay impliqué wu ci tout le monde c' est ça le fort de la justice des hommes. Mhm. bu la dalee bu neexee alhamdulilah. bu la dalee bu la naqaree. da ko war a tegoo mais nag. dañoo nekk ci benn société d' expression plurielle. nit ñi am nañu droit dellu siwaat nag di joxe seen xalaat ci verdict boobu. d'accord est-ce que yaakaar nga ni euh, wax nga ko sànq ne Sénégal réew la moo xam ne ñu ngi fi voté euh, suñu ay bu ñu amee lu ñu naqari ci urne la ñuy dem di tànn président di tànn ay député di tànn ay ñu jiite suñu ay collectivité mais est-ce que loolu doy na pour une démocratie est-ce qu'on peut se suffire de ça démocratie bi mel na bi Sénégal yor. non démocratie. Mhm. ay nit ñoo koy doxal. foo gis démocratie bu dem ba àgg ca fa mu war a àgg. Mhm. koy animer. ñoo am ay esprit démocratique moo tax parce que texte lu mu baax baax baax nit ñi koy appliquer su fekkee amuñu melokaan yi war duñu dem les États-Unis mhm. c'est une grande démocratie on dit la première des démocraties mais benn Trump mhm. def na fa loo xam li entorse loon à cette en mhm. enfreindre ko dem attaquer ak ay nitam Sénat ba loolu problème nit la ay nit ñoo comporté woon noonu mais am na koo xam ne kii ci ci moom la sësoon moom dafa dégg dafa ñëw ci principe démocratique désolidariser ak moom dem pour sauver la démocratie américaine. Mm-hmm. donc lii nga xam ne bi la am na bu fekkee ne nit ñi ñi nga xam ne bi la ñooy acteurs yi. Mm-hmm. amuñu l' esprit républicain esprit de démocrate toujours ay contestation ak ay confrontation fa la mbir mi jëm. d'accord. waaw est-ce que loolu loolu mooy différence bi parce que déjà bi ñu gisee Obamacare euh, Obamacare bi ñu ko bi ko Obama bëggee jàllale ña nga xam ne ñoom ñoo nekk daanaka sax ay farandoom ñoom ñoo ko rejeté gisaat na ñeneen réew yoo xam ne président ba si boppam day bëgg dara ñu gàntal ko ko loolu bu fekkente ne gisuñu ko ci sunum réew est-ce que itam. démocratie bi président bëgg ñu ne waaw euh, démocratie bi du tax nit ñi di ko critiquer des fois. xam nga man bu euh, du ma bokk jamais ci conception ñi nga xam ne dañuy considérer ay justice réew mi. comme juste président la république sama esprit républicain et régalien mayuma loolu parce que ñi nekk ci justice bi dañ leen di considérer comme ñi nga xam ne bi ñoom nekk ci presse bi dans le pays considérer leen comme ñi nga xam dañoo yor ay comportement au niveau de l' ñi yor ko au niveau de la santé ay sénégalais lañu comme ñun prêter serment ñu leen di dénk ay affaires je pense que ñu koy def seen aqulay taala man je respecte la justice de mon pays décision bu mu mun di jël. mu neex ma mu naqari ko dama koy tegoo parce que man maa leen teg foofu di leen ñu jugeloo ca ay homme lañu jugement bi nga xam ne mooy bu kenn dul constaté mooy jugement ki ci kaw nit. Mhm. du juger lu suivant ni mu comprendre li ko yoon defloo mu def ko je ne les jugerai jamais ca mhm. décision bu ñu mun di jël mu neex ma ak mu naqari ma. dinaa ko tegoo parce que day neex tey. ci seen jugement ëllëg mu naqar seen jugement. est-ce que conseil constitutionnel boobu nekkul rek. Euh, ci li président Macky Sall doon wax en 2012. Mhm. Euh, que ni dañu valider candidature Ablaye Wade parce que euh, joxe na ay terrain jox na leen ay ay salaire est-ce que ñu leen di critiquer nekkuñu ci même siège boobu rek. waaw dama bëgg a expliquer ne il faudrait qu'on respecte la justice parce que c'est trop dire wax bu mel noonu. en 2012 de loolu Macky Sall waaw en 2012. Mhm. muy Macky Sall ak. am 2022 muy keneen. Mhm. képp koo xam ni kii wax nga lu mel noonu. man de bu ma doon procureur mbaa may ñoom dinaa la teg ci yoon. parce que réew mi non dama la jàpp damay jàpp yóbbu la ci yoon. bu lay mhm. tëj yoon mooy tëj. man yoruma caabi kaso di jël di dugal mais am na yoo xam ni ku ko wax ci réew. Mhm. fekk na da ngaa am firnde ba. mbaa nga mën koo teg fenn parce que bàyyi nit ñi ñuy wax lu leen neex duñ génn firnde kenn du leen teg dara ci li yàq Sénégal ci la loolu bokk. moi je trouve que mhm. le conseil constitutionnel bu ñu ko yóbbuloo dossier yi la mu gis ci dëgg ci loi ak li ñu ko permettre ci lay joxe kàddoom moi je peux pas me permettre de manquer de respect à la justice comme ça mhm. alors bala ñu ñëw Pape euh, euh, pour ñu détailler la les décisions du conseil constitutionnel euh, dañuy njëkk taxaw ci liste yeewi askan wi parce que list bi bu ñu comprendre enfin su ma comprendre xaw ma ba xam ñuy seetaan même point de vue lañ ci am moo di ne titulaire yi moom la ñu moom moo baaxul mais suppléants yi baax na est-ce que cela veut dire que dañuy dem élection ñu teg liste suppléants yi ñu ñu voté suppléants yi dem assemblée wala qu'est-ce que cela veut dire toute cette euh, euh tout ce enfin je me dis guillemets tout ce euh, désordre. boobu noonu nga wax sax ci mm-hmm. lay euh, moom laay moom laay reprendre pour expliquer que. Mm-hmm. vraiment dogal bi nga xamante ni joxe na ko. Euh, ñu bëri comprendre ñu ko mm-hmm. parce que dafa xaw lënt ci bopp nit ñi mm-hmm. naka la ci demee élection yi boo xamante par exemple du am ay liste suppléant bu fekkente am na ku décédé naka lay demee te gis mm-hmm. nañu législature bi ñi def décompte bi nee nañu xaw ma lu toll rien boo jëlee coalition majoritaire bi rek lu toll ci juróom-ñaari nit wàññeeku nañ ci ñoom bu fekkente am lu woon prévoir ñu woon suppléant yu leen di remplacer naka la mënti euh, de corriger imperfection wala erreur yi nga xamante ne DGE defoon na ko mhm. mais bu fekkente dañuy ñëw valider euh, li nga xamante moom mooy erreur yi nga xam ne day jógee ci première instance bi mhm. day nekk loo xamante vraiment Euh, pose problème mhm. li ko indi lépp nag ñaari mbir la dama jàpp ne ñaari mbir moom moo posé problème bi nga xamante ne léegi ñu ngi koy wax ci conseil constitutionnel bi si jiitu mooy conseil constitutionnel dina rendre décision boo xamante boo ko liree parce que mooy nommé la plupart de ses membres. ñaareelu mbir bi tamit mooy. âge retraite du magistrat yi nga xam ni dañ ko fi indi xam nga magistrat ñoom seen âge retraite 65 ans la. comme tous les fonctionnaires de la IRH spécial. mais euh, ak loi fi indi nga xam ni les chefs de juridiction les hauts magistrats dañuy dem ba 68 ans. léegi bu la tegee poste boobu noonu. boo deful li la fa teg bëgg bu la teggee. doo continuer di bu ñu la fa teggee mhm. doo bir continuer bénéfice bu ñu la fay teggi ngay perte soixante-huit ans yi dugg retraite immédiatement mhm. donc yooyu nag tant mi ngi fi nekk vraiment pour que ñu ñu ñu ñu ñu xoolal professeur Ngouda Mboup li mu wax nee na de 2012 mhm. à 2022 tous les recours de l'opposition ont été par le conseil constitutionnel loolu nag nga ko mën comprendre tous les recours tous les recours <laughs> fois que l'opposition introduit un recours conseil constitutionnel boo xam ne bii hmm. pense que loolu ça doit pas être conseil constitutionnel warut a nekk di rectifier conseil constitutionnel dafa war a wax lu droit. xam nga c'est sur la base du droit qu'il rectifie taxawal déedéet daf na mhm. day rectifier. Mhm. waxuñu ko mu rectifier dañ ko wax mu valider mbaa mu invalider. Mhm. teg ko ci tex boo ko mayee di wax na interpréter yow yaay indi position partisane te loolu waru ci bu dikkee. na xool li liñ ko jox mu saytu ko xool li ci droit wax mu def ko. donc pour man. liggéeyam noonu la war a demee beneen bi nga wax léegi ne par exemple ci la justice sénégalaise. Mm -hmm. comme tout corps dafa nécessité ñu koy évaluer ak di def ay réformes. Mm parce que yi nga xam moi j'ai des amis nga wax nii mais ñoom dañ koy dañ koy dañ koy dañ koy dañ koy dañ leen dañ leen di metti ñu bëgg ñu corriger ko parce que au niveau de ce palais de justice yow xam nga ko yow. Mhm. xam nga ni y a des magistrats qui sont debout. absolument yu bëri yu nekk fa ay jeunes. yoo xam ni yii jeunes yu taxaw lañu yu gëm seen réew la gëm seen profession. tey bëggoon nañu. Mhm. di yéeg di monter di dem ci yenn échelons yi. Mhm. mais tout ça c' est des problèmes de réforme. xam nga nag entre la nécessité pour réformer un système et dire que le système est pourri y' a une différence. Mhm. très pour, franchement mais pourquoi on, on, def réforme yi. pourquoi duñ def réforme yi. agit agit li nga xam ne bile moom ngeen moom ngeen war a euh, bàyyi aussi gars yi. bàyyi leen justice sénégalaise bi ngeen di jël di ko moomale les présidents de la république. man su fekkee ne justice bi li ñuy def yëpp. magistrat ñoom seen bopp ñoom de l'exécutif dans la justice ñoom magistrat seen bopp. dawal donc l'immixtion de l'exécutif fi muy diin fi muy deñee mooy ci réforme yi ma leen wax nan ko def su ñu jëlee procureur bi di ko jël muy défendre de l'exécutif toujours dina am ay immixtion yi nga am soo ça concerne le système dafa nag dafa nag ça ça concerne le système et c'est la chose qui est là depuis tout le temps mooy li ma la wax ne nécessité de réforme mais nag prendre les juges nag. teg leen procureur xam ngeen yow yaa ma gën a xam ne amul benn incidence boo am sur les juges te wóor na ni juge bu ñu jox dossier. kenn mënul lu la dara lu la neex nga juger. kon c'est pas le président de la République qui vient dire. mais am na juge rendre des décisions défavorables à l'État du Sénégal ñu dóor leen affectation punitive. c'est toujours les magistrats qui dénoncent. kooku man kooku man kooku man xam man dénonciation magistrat. te man fi ma toll ci sama connaissance du système. ak fi ma jaar ci ay structures. je trouve toujours que dans les structures il a toujours des conflits à l'interne. yoo xam ne dafa refléter wu. sur les critiques que ces gens qui euh, euh, la structure. Mm-hmm. c'est man parce que un magistrat dana jóg. critiquer la justice man ne ko wax nga dëgg quel le problème de fond bi ko boole moom ba mu am attitude yooyu et combien d'années ce magistrat là a vécu dans le système te waxawul noonu moo tax globalement war na am ay frustration ci biir système bi mhm. mën na am ay magistrats yu jóg mhm. di revendiquer même ils auraient pu avoir un si am nañ ko seen corporation bi di revendiquer di wax mhm. kooku c'est à la limite normale dans le fonctionnement des choses mais taxul ay ñu bon nekk fa. Issa pardon léegi léegi euh, une petite parenthèse bala ñuy tijjiwaat conseil constitutionnel mm-hmm. yàgg nga ci système bi xam nga ko. Euh, e-, est-ce que kon mën nga mën nga comprendre que dans ce pays là. Mm-hmm. Euh, la justice bi ñu am. Mm-hmm. ak organe de contrôle yi ñu am yëpp. yi ngay dégg yëpp ci réew mi mosoo dégg ñu jóg benn magistrat wala benn enquêteur jóg agir par rapport à un mm, enfin un homme du système. musul am euh, le le dernier exemple mooy semaine dernière Thierno xam naa ne dégg nga ko même bu fekkee ne suivre to actualité bu baax ñu ne benn député fekk nañ ci këram huit cent et quelques millions. bon ba léegi dégg ko un début d'enquête sur ça. dama lay tontu ci bi nga jëkk a wax. bismillah c'est plus important. Mm-hmm. gis nga li may wax naan euh, bu bu nekkee dans un système. Mm-hmm. nañ koy évaluer di def ay réformes. Mm-hmm. je suis aujourd'hui un allié du président Macky Sall et je l'assume. je défends li muy def dama ci bokk. Mhm. mais je ne suis pas d' accord sur absolument je di que war na ñuy def ay réformes yaa ngi wax corps de contrôle yi. Mhm. moi je dégg ngeen ma may wax fii ci ay affaire émission le problème de l'IGE. oui je dis aux Sénégalais bàyyi leen li ngeen taxawal ba muy fonctionner di imposer wu ci yéen ngeen di yuuxu ca demu leen changé ko. Mhm. IGE ni muy fonctionner dégg naa leen fii ngeen di wax le président bu teg ay. truc ci moo ay affaires yooyu. mais kii ak yow mii ak kii hmm. yéen ñëpp xam ngeen ne hmm. le fonctionnement de l'IGE ñun ñoo ko permettre oui ñoo may depuis le président Abdou Diouf président Abdoulaye Wade ba ci président Macky Sall hmm. ñuy utiliser IGE ni ñu ko war a utiliser IGE mooy ñoom ñoo koy yónni mu dem le président moo déglu rek moo koy yónni mu dem bu ko yónniwul du dem waaw su dellusee moo koy jox su ko neexee mu xool les rapport de l'IGE yi ñu ciy jox ça c'est des faut administratives dafa war am ay sanctions administratives mhm. yii dafa am ay sanctions pénales yii dafa am ay mesures rectificatives yu ñu war a def mhm. mais dañ la may ne la bu la neexee rapport bi bu waa ji demee ba dellu soit nga ne bon li ma li ma ko taxoon yónni dem na ko nga lem ko dugal ko ci biir tiroir yi wala nga otal kooku pour mu déglu rek mhm. ou bien nga jël ko utiliser ko nam la neex politiquement politiquement bu la neexee kooku yéen ñëpp xam nañ ne noonu lay demee mais suñ ko bëggee dindi mais nañ l dem def les réformes qu'il génne IGE ci président de la république yóbbu ko mu toog fenn ñu jox ko mandat ne ko léegi boo defatee yónnil tribunal mu mhm. def li war a def mais tant que defu leen ko mhm. li am foofu mooy imposé wu seen yéen te ki koy def il dans ce qui est permis dans la légalité te kenn munu si dara mhm. nañuy nangu di gis dëgg bi di xool nag loolu di yàq naka lañ koy améliorer pour indi ko mu mel neneen loolu laa lay wax ci corps de contrôle yi proposé pour volonté wu président la mais du Moustapha wala Issa wala Pape Ndiaye ñooy dem pour ñu ma jox la benn ma jox la exemple ñoom bu ñuy il faut un homme qui a la volonté bu ñuy opposé dañuy kaas loolu noonu bu ñu demee ba toog duñ ko def euh, proposition yi nga xam ne ci peuple bi la jógee yéeg ci kaw dem assemblée nationale dañ ko jël sànni ci ma jëmbal même réforme yi mu wax ni am na sax mais dinaa ci ñëw au pouvoir d'accord su dikkee la ko neex ak la koy dimbali ci pouvoir am bu ko defee kenn mënu ko ciy critiquer bu ngeen bëggee mu changer. loolu mooy problème bi bu ngeen bëggee mu changer bu ngeen bëggee mu changer. génne leen IGE. ci responsabilité président de la république. mais tant que defu leen ko mais ça s'impose à vous xam man li may choqué. te boo gisee maam am débat boo xam ne dama ci am contradiction profonde ak nit ñi. mooy dañuy seet ce que la légalité permet. au lieu ñu changer ko. ñu bëgg a toog ne lii ñun ñoo ko wote ñoo ko fi teg mais duñ ko def. ba ba la ñuy ñëwaat ci réforme yi ngay wax ak Pape Ndiaye mais eh, xam nga ne ci régime Wade am na euh, des gens de son pouvoir. yoo xam ne livré woon nañ à la livré woon na leen à la justice oui bu ko neexul woon du ko def tey ji kon day neex Macky Sall wala mu naqari ko rek les gens de son pouvoir ñu def waaw rapport yi mhm. rapport yi laa lay wax de bu ko neexee mu yóbbu bu ko neexee mu téye ñun ñoo ko may. kon kay jërul jërul jërul organe de contrôle mën nañu bàyyi président rek muy seet. lu ko lu ko neex lu ko neex bàyyi bu ngeen réformé wul. bu ngeen réformé ko. <laughs> Pam Ndiaye sur les ah, réformes xam nga euh, ak euh, a Madior Fall jamono yi muy nekk ministre de la justice. dafa hmm. seetlu woon ni. Ah, en parlant de réforme d'ailleurs bu ñu fàtte ne Macky Sall woon na fi. Hmm. CNRI ñu def ay proposition jox ko ko. mu ne li ma ci neex laay jël li ma ci neexul ma bàyyi. ma bàyyi am na ci droit waaw moo donc Ismaïla Madior Fall jamono yi mu fi nekk ministre de la justice dafa seetlu woon justice li ñu koy critiquer dafa bëri trop. Mhm. mu daal di fiy teg lu ñuy tuddee comité de concertation pour la modernisation de la justice nga xamante euh, mboolem acteurs yi ñëpp ngi si ak magistrats yi retraite ancien procureur ak yi. Mhm. comité boobu dañu def liggéey bu am solo ñu def ay recommandations fortes yoo xam ne bokk na ci trois rek laa ci retenir. Mhm. mooy suppression CREI conseil constitutionnel ñu moderniser ko mu jugee ci conseil constitutionnel dem nekk cour constitutionnel nga parce ñoom dañu seetlu woon ni ñoom bi ñu defee si liggéey dañ ne conseil constitutionnel dafa obsolète maanaam dafa xeewi li xew mooy dañ ko war a def cour constitutionnel nga xam ne compétence am day gën a mhm. mais toutes ces réformes là sont sur la table de léegi léegi lan la xaar pour appliquer peut-être bu ñu ko réforme tam te dañ ko moom parrainage kenn moom oui moom moo ñu koy posé on lui a jamais demandé ça mais Pape Ndiaye mhm. réforme yi nga wax fii yëpp man j'ai le même point de vue que le que Ismaïla Madior boo boo duggee léegi site internet mhm. bi ñuy def le forum sur l'administration j'ai fait une importante contribution boo xam ne bii dama fee théorie de la notion d'administration de développement wax fi la liberté que le fonctionnaire a et est protégé ba nga xam ne devant un ordre illégal et illégitime il doit pas l'exécuter il est protégé par les textes mm-hmm. pour dire que ni il faut ñu def les réformes pour rendre notre démocratie mm-hmm. beaucoup plus attrayante mm-hmm. ak pour fexe suñu société bën a dem mais tant defoo réforme yooyu nga bàyyi l'existant la personne qui vient qui préside lu mu ci def amul loo ko ci mun a wax il n'est pas dans l'illégalité tu peux lui faire le reproche de mais c'est pas un délit c'est pas une infraction ça peut être nag un des un des de jugement bis bu ngeen àggee muy laajaat ne damaa war a yor réew mi ou bien damaa bëgg lii bu boobaa bu boobaa l'action citoyenne mhm. devra revenir pour dire que ne. Mhm. lii kat danoon ko xaar ci moom lii kat waroon na ko def et en conséquence ça ñu def. on vote la légalité. am na lu Pape Ndiaye. Euh, mais restons dans la légalité. am na lu Pape Ndiaye posé sax muy liste bu amul ay ay suppléants mais avant ñuy wax ci liste bu amul ay suppléants am na liste bu amul ay titulaires. Mhm. la grande question ñu bari di ko laaj mooy conseil constitutionnel dafa ne liste suppléants yu yeeyu askan yi baax na donc mën na dem élection léegi problème mooy élection législative day am tête de liste. tête de liste boobu la bu dee Thierno la photo may na ca ca ca ca la ñuy voté euh, tey jii une coalition boo xam ne tête de liste ba il n'est pas candidat nan lañ ko nar a gérer dans une démocratie bi ngay tagg comme comme bu Sénégal. wala ndax Omar Sy la ñuy jël euh, euh, def ci kii. Moustapha muy Omar bi nga moo nekk. Moustapha j'ai pas dit que la démocratie sénégalaise est parfaite. non non loin de la je di pas aussi qu'elle n'est pas irréversible. démocratie bi à chaque instant. Mm-hmm. am na lu ko mën a yàq am na lu ko mën a dëngal. Mm-hmm. lii ñuy vivre ci élection yii. man sans wàllu bopp am naa ci ak jaaxle ak nekk na benn cas d'école boo xam war na ñëw pousser pour que ñu gën a xoolaat mbir yi. gën koo mhm. réformer pour que yu mel nii dootu am. Mhm. parce que très mhm. man mosuma mën a imaginer ay élection yoo xam ni ab liste euh, suppléant mooy dem. xaaju liste man non mosuma ko ki xoolal je le dis en toute honnêteté. sans position partisane man dama ci jaaxle man. parce que bu majoritaire nekkee ci biir assemblée. am député bu xam ni yàlla suñu borom def na peut être mu démissionné ne bëgg tuuti nekk député mbaa yàlla jëli ko fi. wala ñu nommé ko. waaw mbaa ñu nommé ko fenn léegi question boobu ba léegi man maa ngi gëstu pour seet man laajaguma ci nit temps ah pour ñu yéem ci. Mhm. nu ñuy def benn man loolu vraiment maa ngi koy xalaat ak it ab liste suppléant suñ ko mhm. woteelee mais amul ay incidence à portée des coefficients yi nga xam ne moom la ñu war a affecté. ci ci kii kii ci kii bi donc bien sûr. vivre nañu tey c'est de grandes ci suñu démocratie boo xam ne bii. Mhm. laaj nañu toogaat ko toggaat suñu règlement intérieur yi xoolaat suñu code yeeg affaire yooyu. d'accord nga ak Mamadou Diop Decroix Mamadou Diop Decroix mu ne il faut s'asseoir discuter et s'entendre. pour pour yow c'est ça la solution. au-delà de ces élections. Mhm. réew mi fi mu toll dafa laaj ñu toog waxtaan s'entendre sur l'essentiel pour que ñu am ay démocratie apaisée. Mhm. et que les mën a def le meilleur choix. pour nit ki ñuy tànn nga xam ne bi moom moo war a toog nekk seen jëwriñ mm-hmm. yaakaaroon ne le le responsable boog le principal responsable su discussion euh, s'asseoir discuter comme ni ko Diop Decroix di waxee ki ko war ki war a nekk ci ci jiitu ci loolu mooy le président de la république non là ma ngay dem di lijjanti waa Russie lijjanti réew mi moo gën a yomb mm-hmm. bu ngeen ko dee def te bëgg mu efficace te bëgg nit ñi di ci tenir compte bu ñuy wax nañuy dëgg ci yenn problème yi mm-hmm. mais man bu ma nekkee opposition le président Macky Sall ne ma ñëw leen ñu def un dialogue mhm. ñu ñëw ne envoyé leen seen ay mandataires ñu ñëw dem autour du ministre de l' intérieur. Mhm. man bu ma fa demee ma nekk opposition. Mhm. toutes les questions yi nga xam ne bi la bokk nañ ci processus bi dinaa ko reyante foofu ci taabal ji ñu réglé ko buñ ko réglé wul quitte à ma ni du ma am consensus du ma dem ci élection. mais sauf l'opposition sénégalaise déglu leen ma déglu leen ma lii mën nañ ko réglé le fait que ñu ne par exemple c'est le ministre de l'intérieur bu ñu dikkee fi ne nii moom mooy gérer le processus d'accord naa ak yow mm-hmm. mais manoon man bu ma nekkoon opposant man mm-hmm. su ma toogee foofu damay lànk damay deewoo pour un ñu trouver une personne chargée des élections mm-hmm. autre que le ministre de l'intérieur man c'est pas parce que wala ñu revoir les rôle bi DG di jouer ba pare ñu xoolaat DG ci boppam ñu xoolaat affaire parce que pour Macky Sall du pour Lo pour que bu ñuy def compétition mu nekk compétition bu leer boo xam ne kenn du ko labaj duñ fi nekk di wax ay problème mu code code di wax ay fichier beeg. Hmm. dans tous les pays du monde les grandes démocraties yi ñuy copier. Hmm. mais da leen a gis ñuy dem ci ay élections nekk di wax wëy autour du fichier. autour du truc mais il faut qu'on avance. le Sénégal dañuy piétiner di piétiner te du ngeen xool. Hmm. le pourquoi on piétine. su ko euh, defee da xam ne responsabilité